nuyu naa leen yéen ñëpp man la Guy Marius saña gis ngeen ko je viens de sortir euh, maa ngi soog a génn nii ci kaso bu Sébikotane maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm yéen waa Sénégal yéen ñi nekk Afrique fu nekk yéen ñi nekk fu nekk ci àddina bi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ndaxte tey jii nii bu fekkee mën naa génn ginnaaw yàlla yéen na donc maa ngi leen di gërëm et ah xeex bi nag dañ koy wéyal euh, la lutte continue et incha allah nous vaincrons.